wàllu Sénégal jël coalition Jammi Sénégal jël jàmmi gox yi jël li nga xam ne moom mooy Benno Bokk Yaakaar yooyu yëpp la jël moom sax lépp la jël nag léegi jël na enveloppe bi mi ngi dirigé wu nag ci mbañkante bi ne ndax municipal bi yëngu fenn. Jacob yëngu voilà. Thank you. ndax réew sa dóor bi métti na voilà mi ngi noonu. dugal dugal mi ngi noonu. xoolal bi xoolal bi xoolal bi. voilà. voilà. léegi xam naa encre bi. noonu.